coog statut ville de Dakar bi saa su nekk rek ñu gis ci lu bees waaye jamono ji nag dafa gën a jug ca kaw ndax mbir yi dañ ko baral lool politiquement am na lu làqatu ci ginnaaw lépp nag coordonnateur Pastef bii nekk ci Dakar di woo ci turu Abbas Fall moom ñëw na ci ca na mu gën a yaatoo di wax ne lu nekk mën nañ ko gis nag ak Macky Sall te tam lu nekk mën nañ ko dégg ak nguurug Macky Sall gii suppression ville de Dakar bi nga xamante ni nii bëri na coow lool jamono ji nag jël na formam ba ñu fas yéene ko def par force te lii du jëm kër ndaxte bu ñu fàttalikoo ci début bi lan lañ doon wax dañoo bëgg di nommer meeru Ndakaaru maanaam di ko nommer par décret nga xam ne lépp léegi ci loxo président de la république lay nekk di xool ku ko neex mu tànn ko ko maire Dakar coow li bari woon lool mujj gi nag mu jur beneen tournure jël beneen débat ndekete ñoom ñu ngi toog seen biir di waxtaan di jéem a xool naka la ñuy fexe ba mairie bu Dakar bii ñu xool nu ñu ko moomee ñoom ci seen jëmi bopp lii moo tax nag tey jii la ñu doon togg ñor xomm ñu jugee ko ci waxu nomination par décret maire mairie Dakar ñëw di ñu wax suppression ville bu Dakar te yemuñ sax ci Dakar waaye laxas yeneen i ville yu ci mel ne Géejawaay Pikine ak Thiès ak yeneen i ville sax te bu ñu sukkandikoo ci ministre bi di Oumar Gueye moom nee na ville bu Dakar existul en tant que institution ci biir code de collectivité territoriale lii moo tax ñu bëgg ko supprimer coordonnateur Pastef bi di xamle ni lii ay calcul politique dëgg la yu ñu toog xalaat ko nas ko teg ko ngir rek bañ a perdre ci élection locale yi ñu jëm ndax ñëpp xam nañu ne Macky Sall ak nguuram ñu perdre Dakar sanction dëgg la sax nag dañ ko mësul gañe ñoom di dong tax ñuy manipuler loi yi ak changer di toog di xalaat seen xalaat ngir rek jéem a fexe ba moom ville Dakar wala boog ñu supprimer ko définitivement coordonnateur Pastef bi di xam ne ne doomi Dakar yu nag nañu am fulla ak fayda yeewu xam ne naxaate gi dafa ëpp te histoire sax wax nañu boppam ndaxte ba mu yàgg na ba ñu koy nas yàgg na lool nii ndax rek dafa bañoon ne du ànd ak Macky Sall léegi nag ñu teg seen i calcul ne dañuy yëkkati Khalifa Sall jéem xool nu ñuy fexee ba di nommé léegi maire bu Dakar coow li jug ñu changé direction waxtaanaat seen biir ne nañu supprimer ville de Dakar comme ça coowu Dakar moom ci ay élection kii moo ko moom wala ñii ñoo ko moom coow li daal di dakk te nag li Macky Sall nguuram gi seen bakkan lañ ci teg ndax jaral na leen ay manipulation yu bari ci ay règlement ci loi di charte réew mi xool ba xool amul benn fondement juridique d'abord statut ville de Dakar existe na boo demee ci loi du décembre loi boobu ci boppam moo ko reconnaître sukkandiku ci code général des collectivités territoriales te xool chapitre bu code général des collectivités territoriales yi jël na lu tolloog 21 articles jagleel ko pàcc bii lii lépp leer fa kon coow li jarul muy bari sax boo ñëwee ci article 167 bi koy dëggal dafa xamle ne ville li koy taxawal moo di décret te condition taxawal leen ville lii moo indi sax ville bu Dakar waaye ci biir article 67 boobu dafa xamle ni ville boobu su boobaa statut commune lay yor comme commune yi mu ëmb moo tax ku bëgg a supprimer ville de Dakar faw nga modifier loi 2013 10 bii du 28 décembre 2013 coordonnateur bu Dakar bii di Abass Fall di xamle ni ministre Omar Gueye lajj dëgg la def ci communication am ndaxte moom nee na amul kenn ku mën a justifier existence su ville bu Dakar juridiquement dafay nax xelam rek tan li mu wax yu yëpp boo ko xoolee dëppoowut ak loi ak politique de développement territorial erreur dëgg la def en tout cas li leer ba leer moo di supprimer ville de Dakar moom mooy gasal nga kàmb gu xóot ci suñu charte réew mii te nag bu ñu xam fu mu yem coow li day soog a commencé rek waaye day romb fii yépp ndax coow ville de bi dépassé na waxi tur rek naan ville de Dakar waaye dafa laal dëgg suñu charte réew te coow li nag li ko waral lépp mbiru politique la Macky xam na ni perdre ville de Dakar wu ko élection yu problème dëgg lay am pour mën a gagner ville de Dakar te jamono yee ñu génn gis nañu longo Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ci opposition bi lii gën ko tiital jaxase ko moo tax ñuy accélérer coow lii bëgg rek immédiatement ñu supprimer ville de Dakar lee tax coordonnateuru Pastef bi bokk bokk ci kuréel gi ñuy wax koppil di sàkku ci képp kuy doomi Dakar nga jug taxaw woo société civile bi woo bépp organisation internationale ñu bàyyi gët Sénégal rawatina Dakar ndaxte lii doomi Dakar yi duñ ko seetaan benn yoon communiqué bi ko ko bind moo di Abbas Fall membre Dakar